naqar ak tiis la ñu yeewoo ak mbetteel surtout parce que euh, bu fekkente ni yow da nga yeewu rek suba teel ñu la sa kilifa euh, wàññeeku na euh, naqar ak tiis mënut weesu loolu mbetteel aussi mënut weesu loolu surtout nag muy kilifa boo xam ne nii dafay kilifa bu mat kilifa muy Sidy Lamine Niass. fay am habitude à chaque fois que mom mu diko wax bu personnel da ngay dégg toujours sama njabot lay wax donc quand euh, euh, bu fekkee ni ni je njabootam lay wax cela veut dire euh, place bi mu tegoon ses employés donc mu nekk perte boo xam perte bu bu bu métti la perte bu difficile la perte boo non seulement euh, ñun dañ koy sentir mais toute la presse sénégalaise dañ koy sentir. ñak nañu ko xamante ni ku bëggoon lu baax la woon ku bëggoon ku bëggul woon ñuy toroxal nit ku bëggul woon ñuy neewal nit doole parce que sii di injustice la bañ il était également la voix des sans voix un homme constant un homme de principe ku amoon engagement ci ñun loolu la ñu parce que ñu bëri dañuy yaakaar ne Walfadjri man nam fii njóog a ñëw nii mais euh, mine de rien Walfadjri def naa fi 10 ans et plus kon xam nga ne yàgg naa fi te de loin daf lay jàngal même bu ngeen amul leen contrat direct mais ci jëfinam ci ay réunion ci ni ngeen dayee ci couloir yi wal fa di Dakar ci ni ngeen di euh, jaxasoowee ci la lay jàngal lu bari ci lan ngor di dignité muñ patience ñu loolu la ñuy jàngal ci loolu la xam ci loolu la ñuy nàmpe ci moom ba léegi ñu ngi ci. d'abord mën nañ def seede bu gàtt ne euh, gor la jullit la waaw nekkoon na aussi koo xam ni. il était un vrai patriote manam ku bëggoon réew sa loolu soo xoolee li ñaan naan xubbul watani min al iman bëgg sa réew ci liman la bokk donc moom acte de foi boobu yamuloon ci wax mais dafa doon jëf nekkoon koo xam ne aussi euh, man société civile laa bokk mais mën naa ne ñoo bokkoon kuréel ndax presse bi dañ naan c'est le quatrième pouvoir mais aussi c'est la société civile donc Sidi a toujours joué ce rôle de contre-pouvoir et il y a la nuance ñu bari dañ defe noonu Sidi était contre le régime mais soo xoolee taxaw bi mu taxawoon bi du temps du président Abdou Diouf du temps du président Ablaye Wade ak président Macky Sall cest varié dans ses positions il a toujours été constant constant bi mooy être la voix des sans voix être la voix du peuple mais taxaw aussi pour euh, démocratie gën a law taxaw aussi pour liberté d'expression gën a yaatu. si dafa nekkoon comme une comme un précurseur. Euh, de de de la presse privée Nous avons nañu nous bi qui am euh, du euh, protéger la presse qui défend les intérêts de la presse en général les journalistes ak employés dans son organe de presse donc muy loo xam na. vraiment à travers il dafa osé c'est-à-dire c'était une audace même à la limite c'était des moments difficiles mais mu osé tey taxawal groupe de presse parmi tous les groupes de presse mais au moins am na plus-value Moi, c'est le mur de lamentation soo donc mën naa ni euh, baatu askan wi la Sidi Lamine nag nekkoon ni aussi dafa am courage de ses idées c'est-à-dire il était un intellectuel au sens propre du terme parce que li ma Sénégal dafa bari ñett ñi borom xam-xam bu un intellectuel malhonnête jaayil bu omal moy ku am xaalis sa amul xam-xam ak barolo bu falu mom nak ñet yooyu yëpp dalu ko il a toujours été constant dans ses prises de décision sur l'espace public mais aussi en même temps dafa nekkoon quelqu'un aussi euh, qui jouait ce rôle de régulateur social parce que bokkon na ci aîné ci parmi la presse manam ci ñi nga xam ne ñoo doon les doyens de la presse sénégalaise mais fu réew mi aussi mës taxaw njiitu réew bu mës taxaw muy président Ablaye Wade muy président Abdou Diouf muy président Macky Sall bi bëgg manam je ne dis pas salfaañe manam bëgg fexé ba nga xam démocratie bi am lo ci fell pour mu gëna a gannaaw surtout par rapport à ñu ngi rappelé marché yi fi gars yi bëggoon def yu bëri bëri mais dafa taxaw il a pu prendre son bâton de pèlerin et aussi avoir de l'audace taxaw ni lii yoon moo ñu ko may dañ koy doxal mais en toute responsabilité aussi. Sidy Lamine Niass boo gisee Walfadjri tey sax nii c'est un incompris il est incompris mais malgré cette incompréhension là si Lamine Niass si si Sidy Lamine dafa nekk dafa rester constant dans sa démarche dafa constant dans sa démarche am une ligne rédactionnelle boo xam ne que nit ñi nangu ou que nit ñi bañal ko ko c'est la ligne bi nga xamni ni mom le tout organe de presse wara jël manam nek toujours aux côtés des populations euh, les gouvernants ne na a déranger parce que ñom toujours dañuy gis ne euh da fay il est contre le pouvoir alors que si sa démarche, ce n'était pas d'être contre le pouvoir, mais être un contre-pouvoir. Pour nous réguler un peu la démocratie. Nous Bon, donc c'est ce rôle-là que s'il a joué. Il a été incompris, mais de rester constant dans sa démarche. Tous les présidents qui ont succédé au pays, qui, est dans ce pays-là, la même démarche de Sidi Abaknyom. ak on est dans l'opposition souvent dans le naan man la Sidi Andal, mais boo demee ci pouvoir bi da nga naan man Sidi daf maa bañ nit mënul bañ nit tey bëgg ko suba c'est que constance qui est démarche c'est un choix qu'il avait fait euh, respecté na malgré toutes les difficultés malgré toutes les incompréhensions cette ligne là le Sidi continuer jusqu'à son rappel à Dieu. Euh, li que mujjee jàpp ci moom dernière gàmmu Tiwaawoon bi passé man yàlla dafa bokk euh, comité scientifique ci laa bokk bokk ci njabootu moom El Hadj Malick def conférence islamique sur la paix religion paix et prospérité ñu ni au lieu ñuy wuti ay borom xam-xam bitim réew ñu ñëw di ñu làkkal ay lu kenn xamul nañu seet ci réew mi ñi nga xam ne ay kangam lañu ñu boole ko ci panélistes yi yàlla dafa def moom daanu fi gàmmoo mais daf ni donte la sumay ram raam dinaa ñëw keroog bi muy ñëw man maa ko doon modérer ce ce ce débat car bi muy présenté man maa doon modérer maa ko introduire mais suñu xoolee grand boobu bi mu sol mi ngi amoon presque fracture sax ci loxo bi mais da ko doon nëbb dafa soox ñëw bi mu ñëwee mu def une brillante présentation loolu mooy dernière sortem sur l' espace public gàmmu Tiwaawan bi passé vraiment mu nekkoon koo xam ni aussi euh, njabootu diine la woon mais dundewuloon diine mais da ko doon dundal parce que loolu aussi c' est important parce que bari na tey ñoo xam ne ñu ngi nekk ay njabootu diine mais dañuy jël diine bi comme fond de commerce moom nag dafa doon dundal diine ba pare am li ma doon wax sànq ngorom ak diineem mais nekk aussi un employeur parce que lu ëpp solo mooy créer na groupe de presse combien de jeunes sont passés en ses mains e? tey bari na fi organe yu bari yoo xam ñi ngi fi ci foofu lañ soxee ko bari na fi aussi ñu mu employé. Sidi c'est un homme religieux ci famille religieuse le le le le le judo mais indépendamment de l'autre si def pour la défense de la religion musulmane à chaque fois que nous ñi cette religion là si il faut les gens l'entendent dana jóg dana ci wax waxam lu mu ci wax wax wax dan ki dana dana ko ci wax tekkiwul ni euh, cette dimension là daf ko yemale woon rek ci ci ci ci les musulmans dugal dans euh, les rédactions de wolf la télévision booy xool personnel bi danaka ay chrétiens sax ñoom ñoo ci ëpp donc nga gis ni ni euh, nekul won nit ko xamni ni dafa fermé won c'était quelqu'un d'ouvert il acceptait tout le monde te nit ñi dañuy su fekké ay nit da nga bëgg a ak da nga leen accepter ci seen croyances accepter leen ci sen qualité accepter leen ci sen défaut défauts su ko euh and bi mu gën mag mu ki and bi di di di mën neex heureusement que Sidi l'avait compris heureusement que c'était la démarche de euh, Sidi léegi nag li ñu ñaan dem na ci contexte bu xaw difficile parce que hier ku dee yóbbaale mébét leer na ma ne Sidi tey élection yi ñu jëm doon na fi yàlla rek moo fi dul mais il a été utile il n'est pas indispensable mais il a été utile sa su fi toogoon élection yi fekk ko fi xam na continuer pour nekk un bon régulateur un bon contre-pouvoir pour que démocratie soit gën sax pour que l'élection unique, une élection libre apaisée et transparente non seulement à travers son groupe mais à travers ses prises de position mais à travers aussi son intellectualisme mais donc héritage boobu nous ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare mais ñi mu aussi ñu continuer euh, héritage boobu xam Sénégal non la mës a démocratie la waaye tey ku jog amul il a bien rempli sa mission comme un citoyen modèle un intellectuel modèle mais quelqu'un aussi qui a été un patriote vraiment modèle. Nous avions un patron de presse, nous avions un guide, et nous avions un humain. Pour saluer la mémoire de Sidi encore une fois. Euh, di ko ñaanal Yalla, yàlla fait le mais lu ku mu fi jëlee tamit moo fay wutu boppam yal na yàlla wutu àddale ko yéeneem la mu yéene woon ci réew mi ci njaboot gi ak ci presse bi yàlla def ko.